fan amna ben na information yo xamanteni mi ngi daw que ni Pape Diouf quitté na label bi mu nekkoon muy Prince A effectivement loolu aussi damay ñëw pour dëggal ko waaye nak quitté bu rafet la ndax collaboration bo xamanteni ça date de 19 ans loolu du collaboration bu ndaw loolu du ànd bu ndaw donc bima que ko waré def aussi def ci defin bu rafet ndax keur gogou bima fay suis dama fa je aussi dem lenen. def n'a ci je bu reuy ma dem n'a séti suma mak suma frère Ibrahima Ndour ñu en privé waxtaan ba lépp rafet ñu ñaanal ma souhaité ma bonne chance man aussi ma ñaanal souhaité leen bonne chance ndax nak li waral lolu moy la maturité Jotna, la maturité mature nañu et que Jotna, na ñu nit ñu suñuy tank. liggéey te nag liggéey rek tax du leneen